fii lan la leen di fàttalil fii Oustaz Thié tunnel bi lu mu lay fàttalil. tunnel bi tunnel bi mooy ba pro ba pro di dem gars yi ne ko fii ngay jaar. laa ilaaha illallaah jaar oh. laa muy jaar tunnel ba lu mu lay fàttalil. def ko rey si njaabee dugg ci biir. Ousseynou luy di jooy. yaa ngi waa lu mu lay fàttali tunnel ba kenn gisul Abbas Fall ak Ousseynou luy. bu <laughs> rey si rek ay góor. bu rey si ay góor. bu <laughs> rey si jaam yaay góor. <laughs>